Eh, woote wi nag woote jàmm kepp la gis ngeen ñii toog ay jàmbaar lanu ay liggéey liggéeykat lanu xanaa sunu gox bi da leen mujj ban woowee yàgg na nag topp ma rek góor gi projet yi góor gi projet yi man leen projet yi da ngeen ma waxtaan ceeg sama njaboot ndax quartier bi ma kese moom ma ko ab géwél képp laa ñu jël lépp rek jox ma lu ñuy def maay woote lu ñuy wax mën na ni yónni seen projet bi na mu nekk projet bu am solo def nañ ko fépp nag ndax ku ne xam ne ni korte gi jub na te ah kilifa gu nekk sa kër dina am loo fay soxla yu sew yeeg yére yeeg yi ñoomi seen ñoom nag nee noonu ma projet yii boo ci joxee junni am nga cinquante mille maanaam cinq mille ku ko joxe am nga cinquante mille mm-hmm. boo ci joxee ñaari junni maanaam dix mille am nga cent leneen lu waay gën a doublé nag di dem na sa koom di gën a ñëw ngay gën a dem muy dem di dem di dem boo arrière muy gën a arrière. am déet mooy nii de leneen waxoon. waaw loolu neex na di. ah moom kay dama ni la. romb na neex te ñu ko def ñëpp jot nañ seen xaalis nag. Ah, maa la wax li ñu ko def ñëpp. woo nañu ma téléphone ni ma. Ah. góor gi ah. man leen mbaay ñu ne ma xaalis bi ñëw sama kanam. léegi mi ngi nii léegi ku joxe trente mille la. ku joxe trente mille kay yow yokk nga. ah trois cent mille. trois cent ngay léegi eh. ah, trente mille laa joxe juróom benn junni. waaw incha allah joxe. Ah, dix cent la yeneen dix six cent. Mm-hmm. da nekk deux cent. Ah, cinq mille bu ñëwee cinquante bi nekk deux cent cinquante. ah yow kay jege nga trois cent. xam naa ne man ñi ma yor rek. ak ñeneen ñi waaj a ñëw xam naa temps bi temps bi amul. Ah. waaye ku ci liggéey semaine ñu fay la sa xaalis. Ah. lii moom maa la indi ngeen këyit maa la. waaw waaw ayca génne leen këyit. mooy mooy mooy mooy photocopie. booy génne leen këyit ma kaa ah, photocopie. voilà mais légalisé nañ ko. ah waaw waaw waaw bu ci nekk. mooy mooy la nga lay waxoon nañ ca dem police. ah tampon waaw tampon nañ ko. tampon waaw. man de je suis désolée mais franchement affaire projet yi moom intéressé wu ma parce que man sama papa dafa nekk Espagne. cheveux moom ma koy indil li may sol moom ma koy indil man daal franchement soxla ma dara ci affaire de projet. Euh, moi aussi je suis désolé jógal. jógal tout de suite jógal jógal jógal jógal ca biti jógal jógal ah déedéet dafa désolé man damay désolé ca biti damay désolé désolé koy fay avec plaisir waaw waaw fii kan defi plaisir ak yow yéen ñun dépassé nañu la waaye doo ko waxal sa bopp xanaa avec plaisir yakala taxaju boy ay sa banaka loolu suñu yoon nekkul la yeen ñi suñu waroo ko dàq nag boy da koy dàq ba mu neex ko boy yow egal leen boo waxee kii rek waxal mu eh, ngi fii sax eh, eh, doy na mais xam nga problème bi du loolu. problème la la père ñun taluñu ay waxu ay korite ay lebal xaalis ak ay jéem yi yaa ngi dégg ñun am na leneen lu dal quoi lu bokk la. waaw waaw mais père xool nga ñu ba si kaw bi suuf. xam nga ñun nekk fi naan ay. waaw ñu jël 30 mille jënd daal la jënd quoi père yow ngi jégalu. waaw boo boo dee man doo ma dàq maa dem sama yoon. waaw. daw ngeen seen wërsëg de. xam nga ni kii doo fi bàyyi waay père. daw ngeen seen wërsëg de booy saar. yéen yabaate ngeen de. ñii mooy Sarr ku xool sama nga xam ne ku poofu ngeen. ñii dimbal leen. ñii bu dul caga ñu àndandoo jugandoo. nii nii maanaam ba leen lu nekk. at na mu solo. ma ne ma damaa yor sama pompe ci kër gi ñu ngi taxaw. pourtant mën naa leen a boole leen a boole ah, ba ne nooy. ba garawul garawul. Ah, barke jéere maam boo ma bàyyi woon rek ñoom ñëpp laay ravagé. baax na di wax ay wax dox. booy jàppale ñetti kayit a ngi bi man ak maa yow mi toog. waaw eh li jaay joxaaleel ma. booy bu nga ni. joxaaleel ma. ii eh, jaay da ngay xëy jaay jaay fa junni lekk ko toog. Eh, eh, xanaa xamoo korite bi ni mu jub seen yi ay suwetmaa laa jënd di ko jaay ak ay kuddu ak ay paaka loo jaay day jar. joxaaleel ma ma jaay. moo ne wax na dëgg de xalaat yóbbaale ko rek yow. xalaat ci xalaat ci dinaa ko yóbbaale daa ma yóbbaale. xalaat ci dinaa ko yóbbaale. pataas dinaa ko yóbbaale. booy yi nag kaama xamal la nag. wallaay wallaay wallaay booy bëgguñoo liggéey. waay waay waay xale booy bëgguñoo liggéey. bon li lañ wax Sénégal. mënoo xëy na liggéey sumar bi daa métti. léegi yow Batas Mbaye. loo joxe ñaari junni. ah waaw. doo ko ah. ma joxe man moom xam naa. kii laa joxe juróom benn junni. kon mën naa caa yor juróom benn junni ah. ah doo yor. Hmm. ndax gën a sax. waaw waaw yow ah, waaw moom de moom daal loo gën a yokk xam naa ne moom li ma dépassé laa dese waaye kon. mi ngi mel ni xaalis bi mi ngi si seen biir poche ndax. seen kër fu mu di nga jot sa. moom kay jeex na seen kër kañ bi kër tey. pataas yokkal. xaalis di nga jot sa. ñaar yokkal ñett am bu la jox. juróom benn nii yokkal tege ma la bëgg bëgg rek yokkal ñëw kay tee yokkal kan ñun ñu doon yu bees tax kay laa la def yu bees tax kay yu bees tax voilà benn ngi nii ñaar moom kay mi ngi nii nooyi na. jàppal. dibee ko joxe. vingt mille moom vingt mille man maa su joxe trente nag. yow di nga am deux cent mille. deux cent mille kay laa soxla ko. xam naa ne ma jox defal ne xaalis daal ci sa biir poche bi. yàgg na. léegi père ñii am deux cent mille ñii am trois cent mille yow ngay am cent mille. sa yor jox nga ma julee. yokkal rek bàyyi ko rek. yokkal day gën a yokkal rek. wala sa projet la. Eh, sama tur rafet de. Pataas Pa Pa Pa Mbaay. mu dugg sa sama sama dugg sa famille. yéen bu mu nduroo nag. Pataas bu mu nduroo. Mbaay bu mu nduroo. ii maa la yàqale de. bisimilah ah maa la mu ne sox sox ko. la ñuy la fii la. moo gàtt signé de. non non mag signé mag la. eh man dama signé. signé mag la. ah signé la ah, ah, maa la signé maa la yóbbaale man. maa la yóbbaale. boo jërëjëf. Ah. maa la yóbbaale. mi ngi mel ni mi ngi mel ni nag jox ngeen seen xar. jërëjëf ah vraiment yéen père yu nice ngeen. jërëjëf ñoo ko bokk yéen moom waaw. Falla incha allah. cinq heures fu mu jotee tey moom di nga jot seen xaalis. say deux cent mille say loxo. ay waay waay waay waay say loxo yow say trois cent mille. ko ah, bi yëpp xaas bi bu ñëwee kay. ah. moom kay waxuma la dara waaye. pataas. pataas. 5 hmm. heures patas ah. bismillah yaa ngi ne tey nag koor gi daa mbaay mbaay mbaay mbaay na ngeen def moo na ko léegi léegi laa laa ko feeg bii bi naa na ah bii bi léegi laa ko feeg moom ah ma ko jox ii ku baax la ku baax la ku am couleur yaa ngi nekk noonu yaa ngi bite de yaa bite tiise de dama nekk ci kii deux cent mille de coro jum waaw cinq mille coro jum ah 25000. waaw léegi laa ko mën a man sa gars yi léegi. Patas Mbaye Patas enfin. allo allo waaw. Patas Mbaye. waaw bii bi ci la ne. si jàmm. waaw léegi li ma bëggoon mooy. ngeen dem ngeen tëddi bala ngeen a guddee. maa ngi nii di dugg Tamba. waaw man man xam naa la yaa yéen ñëpp xam naa leen dama ni nga dem nga ngeen dem ngeen tëddi foofu laa yem ak yéen nag waaw mënu ma ca yokk leneen seen xaalis lan dem leen ngeen tëddi. Pas contrat, pas projet. xool ko muy woote doo jot tus du ngeen jot dara. Hmm. li yëpp waxoon naa leen ko xoolal. pamaala <laughs> xoolal li yëpp ah waxoon naa leen ko tey suba bi ngeen joxe seen xaalis ah damaa xam ne bu ma ci waxoon rek da ngeen naan kii dafa dof wala kii dafa réew te yéen bi ngeen joxe xaalis yéen waa ji xamoo leen fan la jógee hmm. waru leen carte banque waxu leen turu banque waxu leen dara bu wax ak yéen rek ngeen jël xaalis jox ko ba pare ngeen signé xanaa xamoo leen korte gi ni mu jub see doo xàmmee ku baax doo xàmmee ku bon ñoom ñepp ñooy jóg dugg ci kër yi di def client ñii di sàcc yéen nag dañ leen teg ay biir dañ leen a dóor. <laughs> waaw boobu saw na la waay waaw boobu dina saw waaye saw na mu yaay waay mu yaay waay mu yaay waay mu yaay waay mu yaay waay mu yaay waay. ah projet bi bu réer la de. projet dina ko for mag dina ko for. mais man nag ma wis man kay tooy naa ko. waaw waaw ma wis bala ngaa wis moom 30 000. 30 000 sama 30 000. 70 000 la. dama xam si kii. projet. nga gën moo lekk jox ma jox ma jox ma sama xaalis léegi nu muy demee. nu muy demee lan. nu muy demee lan. nu muy demee lan léegi maa ngi ko waroon a xotti ci gerte gi. léegi ah, booy bi ñëw bi ma war a fay Ndeye Sarr. <laughs> Ndeye Sarr ko waroon ñëw xam si ñaar jaari yaam. projet. waay waay waay waay. waay waay waay wuy yaay yooy wuy yaay yooy wuy yaay yooy wuy yaay yooy waay gëm ko waay wuy yaay yooy wuy yaay yooy wuy yaay yooy wuy yaay yooy wuy yaay yooy talaat nii la waay wuy yaay yooy wuy yaay yooy wuy yaay yooy wuy yaay yooy wuy yaay yooy wuy yaay yooy wuy yaay yooy waay wuy waay waay waay xoolal lii waay waay xoolal lii waay waay laay la la wuy yaay yooy wuy yaay yooy wuy yaay yooy wuy yaay yooy wuy yaay yooy wuy yaay yooy sama papa ma yéen ba jàmm waaw li ngeen ñuy xoolee ñu gën a def nànk ngeen ñuy kulli seen bët yi. E sa dee wane yow da nga koy waxal li nga sa bàyyi yoon wala nga jël sa papa yéen nga am sa